Mamadou Diop Thioune ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw yow yaay euh, conseiller des collectivités territoriales waaye itam moom société civile Green Marines Africa tey Greenpeace euh, tey lancé ab campagne bu mu duppee ana sama jën yow euh, campagne boobu lan la la jox boo ko déggee. initiative bu Greenpeace. Sénégal ak Afrique ak képp koo xee askanu mool nga bokk ci àddina bi war nga cee ànd. jàpp ci parce que defal na la may la bunt may la loo loo loo bokk. di la waxal say wax waaye ngay waxaale say wax ci biir wax ji tey li xew ñëpp la concerné dina wax ne action bi Greenpeace tey di mëne ku ko seetlu mooy la ma la waxoon moom Greenpeace te ñaari at yëpp mu joon eh, ñu saluer vraiment engagement bu ci Cissé ci la mu defoon wax waxtaan woowu xamaloon ne ñoo ngi jëm ci bërëb béréb eh, waxtu woo xam ne li fi des ne bu ñu ko séddoo seen bët mu ngi ci yooyu boobu nga xamee ñun askan bi dañ koy dépendre te askan bi ci la war a mën a soxal waaye di ngeen sàggan ne ba ñu xëyee seddoo ko di ko ñàkk ñàkk goo xam ne tey jii dana tark duñ ci mën dara ngoon su ñëwee tey ñu toll foofu na xam ne vraiment dafa mel ni ko joxe alerte neen jóg leen waxtu jot na waxtu yi mu ngi door a jot pour ñëpp a jóg waxandoo ci taxaw ci am ci pas-pas laajte ñun fu ñu jëm lii nga xam ne buñ ko waree yaxanal sakkanal newatu fi bu jegee fan lañ jëm ñun ak ndax am na ñu droit yi jeexal ko te génération yi ñoon bokkoon ci loolu Greenpeace def na ko ñëpp saluer na ci ñëpp ànd dañu ne am nañ ci pas-pas di leen ci encouragé di ci taxaw niñ ci taxawee ci jàpp xam ne fu ñu làmb lañ ñoom ñoom ci ànd boog ci xalaat. Mhm. tey Greenpeace wax ana sama jën ana sama jën euh, mel ni rek jën amatul fii ci Sénégal ak euh, li nga xam ne moo di ressource halieutique tey lan nga jàpp ni moo waral euh, jën amul ba pare yeneen ressource itam yu bëri ak nañ ni manqué na. waaw xam nga ka gisoon mu bari muy jëm suuf ma naan lu ko jeexal dina wax naan jog leen jog leen su dee tey bay laajte jën ngoon jaaxle dab na ko jaaxle dam lañ tax muy wax na la wax na ko ay waxalul boppam Greenpeace àdduna bi lay waxal te su ñuy wax lay wax ngoon na ci ñëpp bokk muy tey jii kay napp ba tey ndawal ga ngay teg ci kaw boobu boolu jën ba ku ci lekkul jënd na feeñ ci yow ci apport protéine animale d'origine halieutique nga xam ne am njëriñ ku ci lekkul jënd na feeñ yow sa santé ku ci lekkul jënd na feeñ ci ci sa bund ak sa melokaan ngoon bi ñu nee bay laajte ana jën nga xam ne jën réer la jën dem na yoonam jën a ngay saax naxasaay la ka naxasaayal nag. bokk na ci nga xam ne ñii yor te war a dogal bu ñu dogalul la ñuy xaar seen nañu dogal ba lépp lu ci yàqu dañ ci am wàll waaye kii tax ñuy dogal mu bokk ci nga bu ñu dogalee moom da cay am waar muy mool ba war na ci am taxawaay boo xam ne tey si xanal sakkanal ngir ëllëg parce que dañ koo bàyyoon fii bu fekk ko fi nga na ko fi bàyyi ñu fekkaat ko fi beneen bi si mooy ñi nga xam ne tey profit rek ñu xool ak lu leen duunal rek ñu mën caa am lu leen neex seen yoon ci ëllëg seen yoon ci deewu nit ñi mu nga xam ne tey jii dafa mel ni ko produit bi daal moo ëppal njariñ li nga xamee ne moom la ñu war a xalaatee fekk ko ku leen may ñu di ko jël te naka sa dul noona te anaam waxee jaarul yoon te nga xam ne pêche illégale illicite bi ñuy wax tey yóbbu na àddina bi ci nekk di ay juróom téeméeri junniy milliards yi milliards ñu di ko ñàkk ci ay njëb boo xoolee volume ba muy tasaare di ko jël ci géej gi bu yàggee ba yàgg géej gi dutul amoo jël ceeb nag daañu koy yeesal waaye kenn mënu wax ne du jeex ngoon le poisson est renouvelable et non inépuisable suñ bay laajte nag ngoon jaaxle dem nañu wax dëgg yàlla mënuñu lu may takk suñu ndigg ñun ñëpp def benn say waxandoo ko jooyandoo ko yuxandoo ko imposé pour que ñi dogal dogal ñu loo xam ne dañ fekk jën tey fekk bi ëllëg bàyyi ko fi njaboot di ñëw. lan nga jàpp ni moom mooy solution bi ngir euh, li ni mel a dakk jàpp ne état bi ci boppam muy nguur gi moom rek mënul dogal pêche yi parce que bari na ñoo xam ne lu ñu dogal dogal dogal dogal pees mënuñoo tëmb dem ci géej gi te li ci géej gi dafay wutee li ci kaw gi ngoon mool mi tey xam-xam ak man-manam ak takkuwaayam ak ràññee ne moom moo ci dépendre te bu jeexee day jaaxle amu fu mu ko defi ka géej gi béykat ak sàmmkat nekkul ci biir moo la ci nekk ngoon mool moomu di chance de maire képp koo xam ne bokk na ci askanu géej war nañ laa déglu boole ca di saay boo xamee ne dogal bu ñëwee daf koy laal bu ay wa ñëwee bokk waaye bu say wa ñëwee da cee a ba ñëwee war a bokk li nga xam ne mooy dogal mu war koo dogal mu bokk ci ñi ko dogal waaye bokk ci ñi tax ñu di ko dogal buñ ko waxtaanee muy gouvernance inclusive participative ñun ñëpp daañu ci mën a am ay résultats ñi yeneen dëkk yi ñu ngay aar seen géej na mu waree waaye dëkk boo xam ne ku mu nee nga napp ku waaye ne napp jug rek napp ba ñu dem ba yàgg di mën a ne napp gawut nit ñi daan napp di ko dundee nañ jël léegi napp goxee ay mala la ñuy dundal jël ay mala teg leen ci kaw ay nit ngoon àdduna bi war nañoo tuut. Mhm. monsieur Thioune tey euh, usine yi nga xam ne dañuy defar farine jën euh, fii ci Sénégal euh, ak ñi koy transformer bëri lool jaaxal leen yéen ñi nga xam ne yéen a yëngoo ci wàllu pêche ba tax ngeen engagé wu ngir limiter impact bi ci seen secteur bi nga xam ne jamono ji boobu les pratiques illégales mun ko gàllankoor bu baax. foo leen foo leen toll ci boobule combat. waaye dinañ combat bi ñun soxla soxantaaluñu ko daf ñuy ñoroon ñu dem ci dama dem ba nga xam ne. nañ ba waaye di nga xam mooy di ñu xas ne dafa ànd ak ñu li ñu ay kuréel uyu leen ci politique boo xam ne daa nga sant dëggantey dem ak lu mu leen jaral mu jaral ñu ko moo tax ñun ñu fexee au delà wax mool gi rek au laa li ñu bokk ci askanu mool ñu créé kuréel goo xam ne dañ ko mujjee taxawal dem porter leen plainte ci tribunal régional de Thiès porter plainte képp koo xam ne lang nga ci moo xam ban ministère nga ci bokk moo xam environnement ngay génne moo xam pêche ngay génne waaye ku ci laal loo xamee yoon mayu la te nga def ko la tax mu taxaw ba usine bi nga xëy ni mu taxawee uyul norme environnementale bi uyul ci norme code de la de l' environnement ak ñu ko mën a waxtaane ba yeggal mënuñu fay def usine boo xam ne ministère de la pêche amu ci woon baat ministère de ak fu bi nan la fi toogee parce que usine yooyu kenn du ko fi rek am naa bagage am naa man-man dañ la koy autorisé kenn ñu am na norme ñu war a uyu na ñu wér ñu bàpp nañ ne na ñu fit te ñu mel nañ leen ko bàyyi du ñu bàyyi te du ñu bàyyi ëllëg a koy faj lu mu leen jaral dana dem ci tribunal international dem feneen ak feneen ci instant nañ ne daal ay usines yu dundal mala ëppul doole it war dundal nit te duñu ko d'accord tey duñu ko d'accord la mhm. euh, tey euh, Mamadou Diop Thioune boo doon euh, évoluer secteur pêche noo koy évoluer ndax jamono ji sooxe na lool. laaj nga yoo xam ne lu ñu gën a métti ci àddina mooy évaluation waxee waroon naa am. Mhm. xam nga moom bi laaj na ñaata gaal fi am laaj na ñaata la yu ñoom moom nañ leen wàññi ñaata bato fi nekk ñen ñooy dem ci géej gi accords yi naka la tëddee yenn licence fi nekk kenn uyuwul xam nga lu tax Euh, dafa am àdduna boo xam ne bu ca gëstu bokkul àdduna bi du yokk muy la recherche te suñu recherche bi dañ ko xaw a yemamaayal xaw koo soofantal muy kuy wote budget bëgg mu leer bëgg transparence bëgg la ngay jëkk a mooy nga woteel recherche xam ne sans la recherche y développement ñu xam ne ngoon ñooñu seen kàddu mooy li war a jëkke ngir seen naw la yi ñu koy seqal ci àdduna bi gépp fa ñu wéer yokkute ak euh, li nga xam ne dafa nekk luy defar te mu gën kanam gën a baax ci ñun waaye boo gisee ñun ñu am sooxe mooy suñu recette lañ njëkk a feebar loolu ñun ñëpp ñu feebar suñu recette lañ njëkk a euh, soofantal ñun ñëpp ñu soofantal ko ñii jaxu ji dañu bëgg bu ñu laa def benn plaidoyer ñu plaidoyer ñu jox recette bi tous les moyens nécessaires muy référence bi nga xaye te ñu xam lu fi nekk lu fi nekkul lu yokk ak lu wàññeeku ak lu tax mu daanu ak lu tax ñu yegg ci fii parce que lépp lu ñu ci mën a wax te jaaru ci recherche yi d' abord dañuy wax dañuy nax suñu bopp te duñ koy teg ci lu óor parce que la recherche c' est l' élément fondamental référentiel ci lay xaye si la suñu kàddu yu jógee ak yi mën cee jox kon lu waaye def lu dina sebagoo kon nag ku mën a wax tàmbali ci recette bi que bu recette bi ay directives ay évaluation am na si yoo xam ne bu ñu aménagement génn ay plan d' action ko appliqué parce que plan d' action bi yooyu manqué wu fi dañu ko deful nañ ko waxee ak nañ ko waxee woon ak fi ñu ci xewee parce que STEF moo fi def ay assises nationales génn orienté ba mujj ay co-gouvernance ay co-gestion ngoon li fi baax tey ba te moo dugalee loxoom bokk ci ànd jàngu ci la baaxee ngoon li fi yàqu ku wéet yàqu def que ku wéet yàq ku wéet yàq ku yàq na yow bi wéet ngoon bu ñu leen joxe ñeen dañu uy ñi ñu war a ànd ak ñoom loolu may wax ji maam soxna si waaw euh, ñu wax rek ci li nga xam ne moo di repos biologique est-ce que ñu ngi koy respecté fii ci Sénégal ba muy baax ñiy natt géej gi di natt askanu géej xam ko wàcce ko xam jëlu kaw kañ lay ñëw xam jëlu suuf kañ lay jur lañu naan def ay repos biologique par espèce waaye repos biologique waxee dafa jëm ci industrie nekk lii nga xam ne moo taxoon repos biologique am muy askanu géej ba askan boobu moo xaw a dem moo xaw a réer est ce que nekk na fi ba ñuy repos moo tax ma delloo waat ne bu ñu defoon tan li nga xam ne jëm nañ ci recherche bi xam suñuy dem a naka la ci lañu mën a wax ay repos biologique léegi sax waxuma repos biologique dañuy def ay loo toll wax nekk ak lu

nañ si suñu bopp. Mhm. Euh, wax nga sànq euh, réchauffement climatique euh, naka la mën a gàllankooree wàllu pêche. coppi nag jamono gi am léegi boo seetlee mbeex mi dafa xaw a am lu ci yokk acidification bi dafa yéeg nga xool ne mbeex mi xorom ba dafa gën a yéeg nga xool ne tundu géej gi mu ngay gën a tumbeeku di yéeg encore nga xam ne fa jën ba daan jaar gën a jege ci dafa yéeg na yéeg boo xam ne ku laaj def tey di ko jaar di nga lu bare bare bare fa jën daan tëdd jo na fa daan nene jóge na fa la ko tax mu jóge fa mooy xaskan ak xeetu fa nekk di xeetu ndox wa xeetu ndox nga xam ne

saytaane ba pare joxoñ joxoñ ñu ànd ci joxoñ bi ak ndigal kon nañ delluwaat xel ci gannaaw jox li nga xam ne mooy wareef ak yelleefu waa recherche techniciens yi ñu déglu leen seeni avis te ak nag li yàq dëkk aussi mooy politique yi dañu xëy xëy xëy rek dafa ne lépp ñooma ñi jàngoon ñu bëgg leen teg ci suuf dëggaatee duñu leen déglu te mbir mi dafa nekk mbir moo xam ne ay ministère technique lañu dañ leen war di déglu te ña nga xam ne ñoo ko jàng màccee ci xam-xam tey fii ci Sénégal euh, monsieur Thioune ñu ngi wax wàllum pêche illicite maanaam napp napp bu jaarul yoon est-ce que autorités yi am nañ euh, jumtukaay yi mat ngir ñu xeex ko xam nga li gën a bon ci pêche illicite mooy dafay daal di indexé ab corruption pêche illicite boo gis rek dafa am base corruption parce que ku ñëw di napp napp ko xëy waroo ko napp lan la fa dugal bokk ca yow ña ko def ak yow ma ko def baax baaxu leen koo day sàcc la muy sàcc mu di ko lewal di ko dagana ba di ko lewal ña ca bokk ñëpp di ko lekk ba kenn ñu ko lekk alañ ci am baaxul napp yooyu yëpp nag mooy wër àddina bi am na ci tolloog fanweeri junniy mi village la te tey jii dem nañ ba nga xam ne mool yi seen boppam ñooy dem ba géej di gis ne bato yi yëpp ay bato piraat la ñu lu tax léegi carte d'identité euh, service des mines mën a génne camion fi am service des mën a génne euh, euh, poteau yi fi nekk mënaan xam kañ lay jeex ko dul jeex te mënuñoo xam suñu bato ñaata lañu te mënuñu xam suñu bato ñaata lañu dañ ko xool ñaata lañu loolu fi dugal société yi fi nekk est société nationale écran lañu parce que société écran di wuyoo Modou exiger keroog ba feebar bi amee fièvre aviaire grippe aviaire fièvre porcine ci le consommateur européen yi imposé ñeen di leen ay jën amatuñu ay jën loolu nag dafa gën a accentuer la Sénégal une kii no déclaré na plus asiatique duggee ni ci toogee nañu seetaatal mbir mi wàññaat suñu bopp xool toogaay bi jekk dor ko encore waxaat wax bu gën tax ñu nekkat jën bi tey moomuñu ko suñu maam da ko bàyyoon pour ñun dañ ko fi bàyyi pour suñuy sët yi ñëw ëllëg ci lañ bokk d'accord euh, yéen seen kuréel bi di euh, Green Marines Africa tey yéen lan ngeen euh, taxawal ngir xeex pêche yi. ñun ñoo ñun kat dañoo gis ne léegi dëkk bi ko amul kuréel amuloo ko làmb ñu ne leen ONG ak association maire yi nga xam ne ay environnemental ay écologistes lañu nañ ñuy ñu féete wàllu géej nañ dem ca géej ga moo tax ñu dem Greenpeace ñun écologiste géej lañu pêche bi la ñu nekk ak géej gi di ci wax muy gi ak yëpp di ci di ciy taxaw ñun nag ñoo population yi nga xam ne ñooy littoral bi. am am observatoire yi nga technique ci bi pour suñu euh, yi nga ne li ñu ciy gis que jaadu ñu ñu ko wax ñu bokk lu ñuy xeex bokk jumtukaay ñun ñoo dagaloo loolu di xeex te ba ñu taxawee li tax mu taxawi dañu bokkoon ci ay kuréeli kuréel yoo xam ne seen jéego yeggul foofa ñun ñu yeggal ko fa nag xam léegi dañuy porter plainte gars yi topp ci yoon dem ci penc association yi xam mooy société civile ñu dugal suñu loxo bokk ca bokk forum social bi sénégalais Mamadou Diop Thioune ñu ngi lay sant di la gërëm sant nañ ñëpp sant ñu ñu ko bokkal it nga xam ne wala may nga ñuy wax ka léegi suñu mbokki forum social sénégalais bi ñu bokk di liggéey te am ci pàcc bi nga xam ñu wa féete wàllu géej te ñun ñooy écologiste yooyu ak mool gi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm képp boo xam ne taxaw nga ci liggéey bi te li la ñor ñor ñu yëg yéen waa presse parce que ne bu wasaaraw nii kenn xamul kenn déggul mbir mi du am euh, saafara. waaw di fàttali conseil nga des collectivités territoriales ak membre société civile Green Marines Africa.